dañ ko fee séq waaw dafa bëri mhm. ndax suñ jógee si màggalu suñ jógee si julli géej gi mhm. dal si jumaa Masaalik bi mhm. ndeysaan nga xam ne sëñ Tuubaa lu nekk dañ def si dañ ne ngir am jumaa ji gën a si jumaa yi adduna yi mooy jumaa njëriñ benn kilifa daf ma mës a wax ne ma El Hadj Ndakaaroo ngi soogay sant moom laa lay wax man dama lay taarixu jumaa man nga xaw ma dara si jumaa ndax man Baye Fall la Baye Dame Fall mooy sa sëriñ waaye dama lay fag wax ne jumaa jumaa ji gën mooy jumaaw Serigne Touba ba ne sa ndax moom maanaam moo këral bopp maam Cheikh Issa maam Cheikh Issa Diène tabax ko mu di fa julli dafa def ay lawraat dafa naafile jumaa Touba topp si jumaa Masalik bi nag moom topp si moom topp si waaw lu mu taaru taaru taaru taaru taaru jumaa njaareem a leen gën barki maam Serafaan jumaa njaareem a gën si jumaa adduna yëpp damaa bëgg wax ci leer. loo gis si benn la tàmbale mooy un. waaw loolu ndax àdduna xam nañ ko ndax sëriñ bi la laal moo gën la mu laalut. waaw la. fa la doon fa la doon génnee kër gu mag dafa julli jiyee. dëgg la. di fa ay lawaraatam. dëgg la. jumaa Touba jumaa ma ndax suñu borom subhaanahu wa taala mukk di waaye jumaa ji njëriñ gi moo ko rëddal boppam. jumaa ma Salick bii itam si ay tawféexam si ay ngënoon la mu la bokk waaye jumaa njëriñ ma gën si jumaa yëpp mhm. topp si jumaa Tuubaa topp si jumaa Masalik lu mu laal ak gën lu mu laal lu mu laalut mhm. barke maam Serap sant nañ waa Sénégal Buzz ñu leen di ñaanal sa borom yokk seen i mu dem ba euh, bañ a nekk sax télé en ligne nekk daal télé goo xam ne télé gu mag lay doon bokk si télé yi Lamp Fall yi wala télé Touba TV ci doole maam Sidi Ibrahima Fall maa ngi sant nag sama euh, waa daayira waa Mafatixul Bichri mhm. ñoom daara sëñ euh, sëñ Dame Abdourahmane Fall moom Cheikh Mortala Fall di sant sama mbokk taalibe waa Touba Tawfekh di sant waa Kër Massar gëmadu ñi nga xam ne ñooy sama soppe ndax su liggéey bi ba toll fii ñoom seen wàllu bopp ñoom ma jàppale waaw ndax nit nag da sant yow say mbokk si ba ngay dund waaw ndax looloo gën wallaay sax ndax ñoom ñoo ma xamal lu baax ma xamal leen lu baax waaw kon nag maa ngi di sant bu baax a baax barki maam Cheikh Rafa ñu ngi leen di sant bu baax a baax yéen ñun mbokk téléspectateur Sénégal Buzz di leen bëggee bu baax a baax a baax di leen wax ne rek lii leen indiloon ah ci li nga xamante ne mooy bésu jullit jëjji indil leen ko ci bésu ñaari rakkee Serigne Touba moom nga xamante ne tey la faye woon moom te bañ ko yoreel li nga xamante ni tey mooy bor kon tey buñ ko nee màggalaat ñun ñi nga xamante a a